jàppale li nga xam ne moo di immigration clandestine bi euh, jëmale ko ci nga xam ne fan yi ay porté polémique bi amoon ci diggante euh, mode cinématographie muy Jean Paul euh, daal di ñàkk bakkanam ba amoon na ay polémique ni jullit ki mënu ko ñaanal ba ñenn ci imaam yi sax ni ñoom mënuñoo jël ñaan gi di ko jox parce que bokkuñu li nga xam ne moo di diine. waa xam nga day ñun feebar bi ñu am ñun population sénégalaise bu coow amee. Mhm. bu fekkee dafa nekk mbir moo xam ne yoon war na ci dugal loxoom balaa yoon di ci dugal loxoom sax le lendemain boo duggee ci réseaux sociaux yi ñëpp soppaliku ku nekk procureur kii naa waaw nii lañ ko war a def jaarul nii nii la war a jaar bu fekkee tamit dafa nekk mbir moo xam ne dafa laal ci diine ji dès le lendemain ku nekk jóg daal di improvisé wu nekk xut bu sama nekk mufti international ñun Jamra du ñu dugg ci ma riirandoo yooyu d'abord dafa nekk un sujet délicat boo xam ne bu ñu sàgganee mën na jël tournure boo xam ne mari day tali te jàmm rek ma a am entre les différentes communautés religieuses du Sénégal moo taxoon ma bëggoon na fàttali di ko fàttali suma bopp liggéey bi fi mag ñi def pour euh, defar diggante jullit ak ñi dul jullit pendant de siècles te yàlla defal leen ci ndam bu ñu ko yàq bu ñu ko dara jaral damay joxe trois grandes dates rek pour wane ne xéewal bu rëy la ñu yàlla defal te ñu war ko téye ak fukki loxo di ci veiller comme à la prunelle de nos yeux trois dates rek lay joxe waaye bari na benn bi moo di amoon na fi benn Serigne Dakaru donc c'était le troisième grand Serigne dakaar ñu di ko wax Eliman Diallo en 1847 donc euh, vers la fin du 19e siècle euh, mu am ñaari missionnaire catholique yu ñëwoon seeti ko doon sàkku ci moom euh, euh, ndigal parce que nee nañu dañu war a dem mission d'évangélisation au Kayor Kayor c'est l'ancienne appellation de la l'actuelle région de Thiès mu di le père euh, euh, Aragon et le frère Siméon sëñ Ndakaaru dalal leen ne waaw loolu day lu rafet la parce que ñun ñu ngi ak suñu diine yéen it yéen seen bos waaye comme que Kayoor ngeen bëgg a dem pour eggali seen mission d'évangélisation diwaan boobu dafa am bunt bunt ba c'est le dammel may sa de joor kon boo leen demee balaa ngeen di def dara na ngeen jaar ci moom nuyu ko ngeen nuyuwaaleel ma ko sax ba mu jox leen digal ngeen tàmbali seen liggéey ñaari labbe yi dem waaye dañu dem rek le dammel di Kayoor capturer leen def leen prisonnier bi ko grand sëriñ de Dakar le troisième grand sëriñ de Dakar Eliman Diol yége dafa mer ba fut bind lettre maa ngi joxe précision bi pour euh, historiens yeeg gëstukat yeeg étudiants yi euh, bu ñu bëggee dem authentifier ji ko au niveau des archives nationales du Sénégal une lettre en date du 18 mai 1847 18 mai 1847 Eliman Diol troisième grand serigne Dakar moo bind dammel du Kayor Maysa Tend Joor di ko menacé mais ko dégg naa les deux missionnaires catholiques yi ñëwoon tàggu ma ne dañu bëgg ñëw foofu ci sa diwaan pour eggali seen mission d'évangélisation ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ñoom jàngu bi dégg naa ne teg nga leen loxo jàppale maa ngi lay yëgal ne parce que man maa leen conseillé pour ñu ñëw tàggu la balaa ñu def mission d'évangélisation maa ngi lay yëgal ne bu ma yëgee laal nga seen benn karaw rek dinaa la déclarer guerre man le roi de Dakar parce que boobu Dakar royaume la guerre boo xam ne mën na dem ba 30 ans kon daf ko menacé te pourtant mbokku jullitam la mais mu menacé ko pour prendre la défense de ces missionnaires catholiques wala acte boobu ku ko mënoon xalaat même bu fekkee dameel yi ils sont beaucoup plus ceddo que que que waaye moom sëñ Ndakaaru boobu di jullit il a pris la défense de ces deux missionnaires catholiques ba mu jaral ko mu menacé de déclarer la guerre de 30 ans au Damel du Kayor benn ngoog mm-hmm. deuxième date bi bi euh, la cathédrale du souvenir africain pare mooy fii ñu tuddee tey cathédrale Notre-Dame des Victoires moo nekk ci avenue de la République tali bi jëm pare palais de la République mm-hmm. euh, le pape bi nekkoon Rome Pie douze lañ koy wax ñu waroon ko inaugurer pape bi am ngant daal di yabal benn ambassadeur am bu ñuy wax le cardinal Verdier ne ko boo demee nga représenté ma fa ca inauguration ba cardinal bi ñëw ñu daal di ko inauguré date boobu tam na ngeen ko jàpp le 2 février 1936 bañ ko inauguré ba noppi cardinal bi avant muy delluwaat Rome dafa sàkk woon ci gouverneur de Dakar ki sappale à l'époque benn tubaab la woon bu weex tàll Alfred Goux pour mën a saafonte ak kilifa diine yi fi ne te cardinal bi kilifa la ci diineem moo ne dafa bëgg a saafonte avec les autorités religieuses musulmanes mm. Alfred Brooks daal di organiser rencontre bi le 5 février 1936 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville mooy fii euh, le maire Barthélemy Diaz nekk tey alors ba cardinal bay egsee ne jamet dugg ci salle bi li ko jëkk a impressionné mooy këru diine yëpp Touba Tiwaawan Njaasaan Canaba Ñaseen Medina Baay Laayeen famille omarienne délégation bu rafet ak seen colin yu rafet ñi ngi taxaw dégg nga euh, pour euh, accueillir ko ñoom avec le maire de Dakar Alfred Boukus euh, ñooñu représenté woon këru diine yi jël seen kàddu jox ko Serigne Babacar Sy qui était à l'époque le khalife général de Tidianes pour mu wax ci seen tur sëñ Babacar si moo jàkkaarloo cardinal Verdier nekk daal di ko ne ah maire bii ñu invité de Alfred Goux la bokk moom diine yow mii nga xam ne yaa tax mu invité ñu pour ñu tàggatoo ak yow parce que inauguré ngeen seen cathédrale ba noppi da war a ñu biroom yooyu itam bokkuñu ak yéen diine waaye ñun dañu tënku si benn jàngale bu ñu suñu borom jàngal mooy ñi nga xam ne même bokku leen diine te yàlla dogal mënu leen tàggoo yéen a bokk penc mi yéen a bokk dëkk bi yéen a bokk kañ yi bokk événement yi na ngeen rafetal seen diggante eh, ak ñoom te tënku ci baat boobu ñuy wax làkkum diini kum way la diini ñoom ñu ngeeg seen diine yéen itam na ngeen garder seen bos alors mu daal di ko sargal ñu def cérémonie bu rafet ba noonu la ñu euh, tàggatoo avec le cardinal Verdier euh, représentant xali généraux yi euh, tàggook moom moom itam mu daal di tàggoog moom ñu doog a dem Mhm. kon nag loolu mooy deuxième date bi je termine par la troisième date mhm. en 1992 Jean-Paul II nga xam ne bi mu faloo ba léegi mësul teg tànk Sénégal mu ne daf fi ñëw visite waaye dañ ko annoncé un mois avant coow li ne kur Sénégal 92 yàggul ñi naan non un pays ak pour cent de musulmans ki nga xam ne c'est le xalif xalif général euh, des des des des des catholiques du monde entier ah loolu daal day na waar nangam nangam mu indi jeexi jaax ci këru dina yu bari le président abdu Diouf qui est vivant et qui nous xelam dem ci le grand sëriñ de Dakar El Hadji Bassirou Diagne Marème Diop yàlla dogal suma yaay Fat Diagne moo nàmp jox ko mu nàmp ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak bay nee ko daal polémique bi fii mu toll yow daal laa ci yaakaar nga mën a yore sa puso di ràbb dégg nga apporter la bonne information Euh, au familles religieuses daal di ko missionné Bassirou Diagne sol dàllam am yeneen dignitaires yu mu àndal ñu dem di wax ak kilifa diine yi euh, fépp foo xam ne am na désinformation bu ñu fa defoon mu daj yëpp wax leen ne kii visite kii la rek visite d'état la rek wala boog visite officielle parce que bu ñu fàtte ne que Vatican c'est un état pape bi euh, chef kilifa diine la waaye chef d'état la aussi donc mu daal di ko rafetal ba mujj gi daal pape bi mujj ñëw. ça s'est très bien passé daal di saafonteeg ay taalibeem yi nekk ci wàllu jàngu bi ba ba muy ñibbi sax collectivité la bu jox ko ay cadeau yu bari jox ko xar bu mag xam naa xar bi du ko mën dugal ci avion bi xëy na daf koy may waaye église bi waaye jël nañ gaal nga xam ne c'est le c'est c'est un cadeau symbolique de la collectivité Lebu parce que lu ëpp ci collectivité Lebu bi ñu ngi dëkk ci zone côtière bi ay Wakaam Ngor Yoff daal di ko jox visite bi sa s'est très bie passé kon nag ñetti data ngi noonu mm-hmm. yu ni ñun amuñu droit li suñu maam yi liggéey de siècles avant ba rataxal diggante entre jullit ak ñu dul jullit ba dañu dem ba mel ni ñu bokk ndey ak baay amuñu droit xajamal ko euh, yàq ko mm-hmm. te lu ko yàq dafa yomb te yàlla dogal na diggante bi rafet ba am na sax ay cimetières yoo xam ne cimetière mixte la benn bi mooy période coloniale bi gore kenn daafu suul nit ku dëkk gore te wàcc liggéey li waraloon ñu ubbi cimetière bi autorité coloniale dafa ne nañ ko def cimetière mixte moo tax ñañu fa njëkk suul am na ay jullit yu fa ne mhm. am na si jullit bu siiw imaam la mu di imaam Seydou Nourou Dem di nijaay ci ancien président Abdou ndax càmmeñ la ci way jur bu jigéen président Abdou Diouf ñu ngi ko suul fii cimetière catholique bu Bel-Air parce que à l'époque cimetière mixte la woon xëy na léegi catholique yi ñoo fay faral di suul seen néew mais au début bi ko colonie colonialiste yi viabilisé waa gore ku fa faatu fii lañ la daan suul waaye ilimaan boobu mu nga fa tëdd ba tey Jules François Bocandé l'international de football bi génne àdduna en 2012 fan lañ ko suul le cimetière mixte de Santhiaba Mandiat te nekk à quelques encablures euh, du stade Aline Sitoé Diatta mhm. loolu yàlla moo ñu baaxee cette fraternité cette bonne convivialité ba jullit ak catholique dañuy dem ba fàtte sax ne euh, kii diine bii la bokk wala kii diine bii la bokk mhm. man mii daama ma propre famille sama côté pap son grand frère Alaaji Ibrahima Guèye jabaram nu mu tudd Émilie Pierre ci communauté boobu la bokk ci sama côté way jur bu jigéen frère te xam ngeen ko mu di Ibou jaañ moo fi nekkoon le président de la fédération de basket yàlla nu ko yàlla yërëm sa femme donc Ibou Diagne bu bokkee sama yaay ndey ak baay kon jabaram umpaañ la ci man elle est mu ngi fii di ma dégg naka la tudd Césarine Diagne mu ngi pratiquer diinam mhm. bu euh, euh, kii jotee Pâques mu defal ñu ay berndel ngalax yeeg yëpp ñu itam bu tabaski jotee yàkkamti ñu dul rek bokk ak ñoom eh, naru naru yàpp mu bari mu néew loolu mag ñee ko liggéey fii lañ ko fekk bu ko defee nag kii génn àdduna tey di eh, dalmeda li may jëkk a def suma doom baay bi nga xam ne mooy suma xuloowaale Ibou Guèye bu Evenprod dégg naa mook ñoom ñoo bokk liggéey ci wàllu série te ñun Jamra ak Siri dañuy mbëkkante rek fu ñu toll kon Ibou ñu ngi la koy jaal moom dal Dalméda moom ci boppam nag xaw ma ko personnellement waaye fi ma njëkk a teganteeg moom bët Ahmed Aïdara l'actuel mer de Guédiawaye dafa ma invité woon man ak Barthélémy Diaz ak yeneen kilifa ñu daje ci xew-xew bu rëy fii ci en face hôpital Dalal Jàmm doon def ay don de sang. Mm-hmm. parce que centre de transfusion sanguine dafa amoon déficit mais ci ñi fa jëkk a teew dal me daal di ci la bokk maa ngi fàttaliku presse bi tàllal ko micro ne ah yow dangay ngay maye deret mu ne ci laa dëkk parce que xamuloo yow nit ki foo koy soxla jigéen ñaa ngi nii di accoucher avec difficulté ba léeg-léeg mu laaj ñu def leen césarienne ñu perde beaucoup de sang alors la ñuy jëkk a def mooy remplacer deret ji tuur te loolu fu ñu ko mënee remplacer. mooy ci don yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def mu ne bu dul dara itam les accidents de la circulation nit dana accidenté en attendant secours yi ñëw nga perte deret bu bari ba xam kooku tamit bu ñu ko yóbboo en soins d'urgence li ñuy jëkk a def mooy daal ko transfuser deret ban mooy deret bi ñuy mel ndekete gis nga mbiru yàlla rek ndekete moom ca loolu lay ñàkkee bakkanam alors kon nag ma bëggoon wax ni kon euh, nañu delloo si xel yi te euh, dalmeda euh, am na ay catholique yu bari yu ko fi jiitu di ay kilifa yu génn àdduna ah, coow li yëpp amu ci woon ana lu waral nag ci moom ñu bëgg a tàmbali coow boo xam ne amul benn sens euh, moo tax ñu bari dañ ma ci interpellé waaw li ñuy wax naan ku ko ñaanalul ku ko ñaanal te tey jullit def nga lu dul yoon ndax comme ko bokk leen diine waroo ko ñaanal yow loo ci xam ma ne leen ñun day Jamra dafa am hiérarchie comme par exemple am na ustaas yu bari am ustaas Assane Gueye ustaas euh, Aliou Sall euh, ak yeneen ustaas bu amee loo xam ne dafa aju ñun ci suñu domaine de compétence xeex drogue beeg euh, les les séries perverses yi véhiculer des idéologies LGBT ak bi banaliser la pornographie verbale l'apologie de la et de la fornication en général dañu ne ah diw day yégal nañ ma ne nangam xew na donte la stage la de waaye am na woyof gu dey ni reconnaître nañ domaine boobu ñun ñoo ko ci ëpp xarañteef alors ah xanaa di ngeen ci am taxawaay ma ne waaw dimbali ma rek nga yónnee ma élément yi nga xam ne yónnee mu daal di ko yónnee ñun ñu def démarche yi ñuy def moo xam plainte bu ñuy def jëm CNRA Euh, kii nu mu tudd le conseil national de régulation de l'audiovisuel wala plainte bu jëm ci procureur comme série bu bon boobu ñu wax réewu leen di jàngal xale yi ngóor jigéen jàpp ay acteurs mettre leen en scène 17 ans 18 ans euh, ay acteurs yu am 20 ans volontairement ñu efféminé wu def fond de teint diw rosa di regeju di dam loxo ay ustaas yu bari ñoo ma ci saisiroon ba procureur jox ñu dëgg jàpp nañ xale yi tëj leen 17 jours de détention préventive euh, au terme du procès ñu tëj réalisateur bi ak producteur bi à deux ans de prison avec sursis acteurs yi ak actrices de prison avec sursis kon noonu lañu yàgg ñun di liggéey ustaas ñoom jox nañu cër boobu waaye ñun itam dañu nangu ñoom ñu gën ñoo gore moo tax bu amee ay mbir yoo xam ne ci seen domaine la man ñun léeg-léeg dañuy woo ustaas Makhtar Sarr léegi-léeg ñu woo ustaas Iran Ndaw léeg-léeg ñu woo ustaas voilà moo tax nag tontu li ci point boobu mm-hmm. Euh, oustaz Aliou Sall maa ngi lay interpellé Jamra cër bañ la joxoon wàññu ñi ci dara kon nag coow lii est-ce que jullit am na droit ñaanal ku gaañu te di jullit yow loo ci tontu rek Jamra doyloo na boobu tontu mooy tontu Jamra salaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. ñu yoo xam ne Mara Niass def ko biir Touba